Euh, bég nañu ci sa teewaay tey ci télévision Futur Média ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi nga xamante ni euh, ñoo ñuy seetaan balaa ñuy ziar ba gisee ñu ngi leen nuyu Titi. waaw Pape maa ngi leen di nuyu maa ngi kontaan ci teewaay bi ah, di am ginnaaw bi ma sant yàlla. Ah, julli ci yonent bi Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam sant sama ñaari waajur sant toute ma famille di nuyu tamit ñëpp ñu nga xamante ne yàgg bëgg titiyee mm. di nuyu ñoom Mado comme ni ma leen fi fekkee ñoom awa vraiment mm-hmm. waaw Bijou tamit maa ngi koy nuyu di leen jaajëfal di kontaan di nuyu tamit nag sama papa Youssou mm-hmm. parce que su ma ñëwee TFM aussi il faut que mu nuyu ko sargal ko mm-hmm. ñaana ko yàlla nuyu toute sa famille ñoom Bouba Ndour aussi Ibrahima Ngoone Abi sama limee damay jum mhm. nuy naa ñëpp nuy dem ba nuy képp ku ma fi fekk di kontaan. tey nu korité bi deme waa korité bi nag comme ni ma koy defee rek toujours sama kër yaay laay dem. Ah. foofu la ñuy julli. julli ak njaboot bi. waaw famille en famille xam nga géejawaay dafa neex. waaw géejawaay dara daax ko ci ay tabaski ay korité. waaw ah, c'est vrai que dëkku ambiance la. tamit waaw waaw waaw banlieue bi moom dafa neex moom. Mm-hmm. man loolu na dama ko tàmm ba nga xam ne fu événement amee rek géejawaay laay nekk. il faut nga dem ci famille bi. dem ba gisee ñu ngi lay nuyu yow itam kontaan nañ ci teewaay bi. ñu ngi leen di siyaar salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp Mado maa ngi lay nuyu Bijou Awa Baye Cheikh Baye Dadi. ñu ngi lay kontaanee ah di baalu ak tey mooy sama invité d'honneur tey. yii si mooy mooy sama invité d'honneur moom maa ko spécialement da koy invité moo tax 5 heures la ñëw. <laughs> depuis mu ngi ci télé bi <laughs> non damay ñu ngi leen di siyaar bu leen baalu ak aussi uh-huh. nuyu ñi fi nekk ñëpp di jiital nuyoo bi sama papa Youssou. Mm-hmm. nuyu sama papa Baba Mar. Mm-hmm. waaye di nuyu aussi Bouba Ndour ñi fi nekk ñoom Aysata ak ñëpp ñoo xam ñu ngi nekk ci kër gi. Mhm. di leen siyaar yéen ñëpp naan asalaamaaleykum. Mhm. léegi dañuy commencé da ngeen da bëgg a cokkaas ah. souriram bi. Ah. amul benn affaire bu ci nekk. Fatima bëri na histoire ab njaagoole buy sëy kër ki na jóg lu waaye di wax dem ba nanga nga xam. waaw njaagoole xeexkat la woo xam ne de. man am naa champion. ja waaw xam naa lool sax mais sourire jàmbur bi bu ko bu ko tudd. non eh, si cokkaas la bokk bàyyi. is ah, democracy cokkaas bi la bokk. of course am cokkaasing him. leave her alone. yeah I like parce que the sourire. there's something about uh-huh. uh, mais lu tax ñu toj otoom tout le temps wala ah sama nekku ci cokkaas bi ok laa ko bëgg laaj comme yu demee noonu ak ku toj bi tam. ak lu mu jotee ak pend gis as sa sourire bi. tu es naturellement souriante wala euh, benn forme de séduction la pour say euh, say say euh, say say ñi la bëgg. kii alpulaar la gën a dégg séduction de. je laa juddoo. esprit bi ce n'est pas mi yëpp la koy waxtaan ni ma nekk xale. donc c'est très normal nii laa mel noonu laa juddoo quoi. Mm-hmm. loolu mooy suma suma feeling quoi mooy caaj bi quoi. problème mu oto bi nii xam nga moom la gars yi di. <laughs> Ah, nga ni problème mu oto bi. oto ban. non tey nag vraiment spécial Korité moo ñu indi. ah ñoom ñu ngi cokkaas. ah ñun ñu ngi xam nga ki oto bi dama ko gaare xam nga ñun suñu koñ yi fii. Uh-huh. daanaka nekkul kër yi dafa am ay garage quoi. da ngay da kii rek genre miir bu gàtt la rek. foo ku jot da ngay ay sarale la sarale waaw kay da ngay ñëw tey nga ñëw gaare ci booru boutique bi <laughs> fekk gaare si buntu ngay dem feneen. Hmm. léegi nag comme Pendo damay gaare tout le temps foofu noonu te sama oto moo gën a rafet otom uh-huh. ci la yónnee ay gars yi ñu toj vitre arrière bi. ah moom la ok moo yónnee woon ay nit quoi. Oh. ñu toj oto bi. waaw kenn du la ko jiñ mais Pape Cheikh bëggoon naa xam ñoom ndax ñoom dañoo bokk ci koor gi ci tiimu euh, xëdd tëdd yeewu ndogu bi fonctionné guddi gi comme ñun niñ koy defee ak lan ngeen doon def ci koor gi yow ak Titi laay boole question bi. waa xaar Titi tontu ba pare. <laughs> non man nag euh, man pratiquement dama ñeme dama ñeme koor quoi. Mhm. man même bu dul woor sax je pense que bi ma bi ma xëyee lekk ma bi ma ñëw fii sànq laay soog a lekk quoi. dama mel ku wooraat rek. parce waaw bon ñam naa tuuti laax rek ci suba si quoi mais après toute la journée lekkuma dara pour wax la ne loolu dama ko tàmm quoi même bu may liggéey nii sax toute la journée mën naa yendu du ma lekk donc man du ma pro amu problème mu woor quoi en plus aussi du ma nelaw lu bari man tuuti laay nelaw yeewu tuuti dox lu bari. dama mbaa du wàll yu nga. waaw waaw ñu ngi ma ko jiiñ nag. sa corps mën nañ xam naka lay demee parce que artistes yu fii ñëw yu bëri dañuy wax que si la ñuy composé si la ñuy dem en studio fanaan studio moom mooy téem bi may wax rek sax ah. suñu genre gi nga ñun xëdd tëdd yeewu ndogu lañ ñun ñun koor bi xamuñu lu xew donc comment ça se passe pour yow koy defee à chaque fois rek suñu wooree ah, bu ñu xëyee ne ci kër gi mais lu ci bari tamit ah, man moom moment bi fekkoon na tamit maa ngi studio mm-hmm. donc kon nga gise même bu ma wooree def yi may def tamit mun naa dem sax léeg-léeg studio la fanaan. looy waajal. ah waa surprise rek. <laughs> non gars yi dafa mel ni léegi bëggatuñu wax yi ñuy waajal. ah c'est vrai bëgguñoo gaaw gaaw a wax. Uh-huh. ah ku xam fi nga dem nag fa fooy dem du la da jiitu foofu tax toog di la xaar doo jub na li ma wax. jub ak dafa garaaw sax li nga wax yow. dafa dangerous. <laughs> mi ngi doonu Titi euh, man nag damay ñëw si euh, the look. xam nga man dama bëgg lu rafet macha allah dama bëgg lu rafetee. macha allah macha allah and then euh, ma gis ne euh, dañu nekk si euh, période de chirurgie ah. feeling la ku la neex ku nekk mun nga ko def parce que mm-hmm. feeling la. mais yow gisuma nga def lu demee noonu te pourtant macha allah saa yu ñu lay gën a gis ngay gën a rajeunir di gën a fraîche macha allah. di gën a look young. Titi Titi lan la what is the problem what's happening what are you doing mun nga ko partager ak ñun please. <laughs> waa sant yàlla rek. Mm, parce que aussi comme ni nga ko waxee tamit xam nga jigéen ñi dañuy dem yokkaat lu jëm rafetaay si ñoom. Uh-huh. loolu d'accord naa ko parce que mm-hmm. bépp jigéen ñoom xam nañu Sénégal mm-hmm. que dañoo bëgg seen bopp du dëgg mm-hmm. donc kon loolu duñ def lu rafetlu ko kontaan ci tamit parce que bu ñu tollee ci jamono boo xam ne jigéen ñëpp kenn bëggatul des ginnaaw kenn ku ci nekk ci sayit bi nga nekk yaa ngi ciy nekk pour gën a fës wala pour nit ñi gën a gis sa taar man loolu dama koy rafetlu waaye man damay sant yàlla rek ndax it yooyu yëpp defuma ko nag xëy na nii la ma yàlla bindee te ku xam titi xam ne comme ni ma ko waxee toujours rek dama yàggoon mos a bëgg ay affaire mode. Mm-hmm. dëgg la nag euh, sama apparition sur la scène musicale Sénégal ah bi ma ñëwee am na ci ay loxo yu ma jaar ñu nga xam ne dañu ma daan jàppale ci sama attroupement samay solo ak yëpp. Mm-hmm. ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal. waaye mais il s'est trouvé que ne depuis sept ans wala cinq ans léegi titiyee moo jël lépp lu jëmati parce que man defoon naa modd moo tax. macha allah moo tax léegi nag dangay gis ne ah, designer boobu ma bëggoon def di créer di kii léegi. loolu la yaa ngi ci waaw daay mm-hmm. nuñ koy waxee. ah designer. designer ah, waaw ma boobu noonu rek laa bëgg a ci sama bopp. Mm-hmm. moo waral sax tout récemment on a vu que boo xoolee ah, clip bi ma mujjee def boo ko laalee. lépp man la mais ak sama benn staff bu ma teg bu ndaw bu nga xam ne suñu ma bàyyee ma dessiné indi ñëw war leen ñu nangul ma ko macha allah léegi tamit euh, moom laa def ci moom laa taamu léegi na nga gisee it moom laay doxee pour nit ñi gis ne tamit avant ma doon woy man affaire mode mooma mos a neex comme ni ah. mun naa la xool na la boo aligné nangam ak nangam day dem mm. da ngay gis boo ko defee loolu dafay dem daf lay jàpp dama ko daan fowee sax mais après ma dem ba gis ne loolu dafa nekk si man affaire mode coiffure parce que man coiffure laa njëkk def mm. dama daan lét damay coiffé damay def affaire cheveux yi nii greffage coupe yi nii su ma jëlee su ma la kubalee da foog ne salon la yooyu yëpp dama ko daan def mm-hmm. mais yàlla def na léegi tamit euh, am na salon boo xam ne car macha allah mm-hmm. ñoom gis naa ne sama style tamit mu ngi ci ñoom mu mm-hmm. ñoom kat yi ba nga mm-hmm. xamante ñoom aussi li ñuy coiffé dafa rafet mm-hmm. su ma ñëwee na leen lii laa bëgg ñu defaral ma man ma indi teg won staf bi staf bi nangul ma ko ma daal di aligné loolu rek léegi pourquoi pas def comme euh, artistes yi nekk à l' international suñu tegee seen marque gis ne que seen style seen fans yi bëgg ko dañ koy commercialiser industrialiser ko est ce que sa xalaat mi ngi dem foofu wala commencé nga ko te moom lu mu sol ñun ñu coow ko de loo sol ñu coow ko. dëgg la dëgg la waa parce que nag euh, ni ma ñëwee woon ci scène musicale bi la parce que boobu temps bi ma ñëwee woon dama ne ah xaaral ma njëkkoon def lii ay benn nopp. Ah, waaw ay waa. sa identité ak sa artistique bi ngay wax ni macha allah. la ma doo parce que xam nga li tax mooy suñu tailleur fii stylistes yi ñoom ñëpp car macha allah ñoom ñëpp mën a ñaw. Mhm. ñoom ñëpp a am style mhm. mais parfois aussi nit ki bu la dee solal jàppal ka ni di nga solu ci estilam dëgg la. donc c'est pour cela man je préfère ñëw sama estilu bopp ba pare ñi ma koy jox ñoom it dañ may comprendre ci loolu da ngay gis su ma ko defee dañ ma naan waaw dañ ma koy nangul même staff bi aussi la même chose rêvé naa tamit ëllëg ñi gën a fësal loolu wone ko waaw am sa clothing line waaw am sa clothing line yaa noo koy tuddee mbaa du titi yee <laughs> wala yee titi bi moom marque la du ci daj wala yee <laughs> à tout moment mën xam naa ni daal bi ma ma doo maquillé may capp cappal xool na ma ni ma bàyyi lii di nga maquillé di cappal ba yàq parce que dafa bëgg rafet et que voilà on apprécie bien le style bëggoon naa ñëwaat si seen featuring yéen ñaar nu ngeen ko qui a eu l'idée woo keneen kii nu ngeen ko composé nu ngeen duggee studio raconté leen ma un peu histoire son bi <laughs> bi histoire bi euh, c'est à travers Demba moom moo ma woo parce que yàlla dafa def moom daf ma mës bëggal boppam rek. Mhm. parce que aussi xam nga nit di nga koy seetaan à travers la télé wala dégg ko ngeen nekk ci dëkk bi. Mhm. nga bëgg ko te yaa rek tax. Mhm. moom nag loolu la def. parce que aussi bu ñu bokkoon dëkk parcelle. ba yàlla def ma nekk artiste ñoom tamit seen kër ku leen xam ne ay ndaanaan lañu. këru artiste la. waaw dara ñaawut. depuis loolu bu ñu ñëwee bu ñu dajawee kafreetaan daf ma koy tooñee. à chaque fois su ma waxee mu ne ma titi laal yoon xam nga. wax ay wax yoo xam ne vraiment di sama nawle. Mhm. moo tax jour bi mu ma ne titi dama bëgg ñu def nangam mën na ko demba loolu ci yow la des. xam nga léeg-léeg nag nga bëgg def dara sax après mu yéex wala date bi du jot. Mhm. mais yàlla def na ni toggoon nañ ko bu yàgg sax. Mhm. bërki demal ko suñu borom door a sottal mu génn. bu yàgg na waaw bu yàgg un an et quelque ah, ah, ah, def na un an et quelque parce que day taxoon génnul boobu ba léegi non day voyagé bu ñëwee woo ma mën na ko man dem naa dem ba léegi dafa international de. <laughs> su ñëwee ma ne ko ah Demba man dem naa de nekkuma fi de léeg-léeg mu ñëw ma ne ko ah Demba bàyyi rek xool xaw a dawaat quelque temps mu comprendre mu aussi ci loolu vraiment toujours mu patient rek ah, tamit ba yàlla sottal daal on l'a fait ensemble ñu liggéey ku liggéey bu rafet ka macha allah ah. bi ñu ko defee aussi ñëpp gis nañ ne mi ngi génn le huit bii nii mhm. ñëpp neex ñëpp car moom it mu neex a liggéeyal tamit mhm. di naan di ku baax sawar naa daal liggéey ak moom macha allah. Demba yow noo dundee collaboration bi. waaw kontaan rek xamaati te moom ni nga waxee rek man moom mun naa ne si si fans club bi laa bokk. <laughs> parce que man pratiquement ñi nekk ci moom yëpp sax samay xarit lañu. Mhm. à travers moom quoi. aussi nag mu yàgg nag ak man aussi bëggante bi nekk lu sincère aussi. Mhm. Euh, ba lu ma mën a woote rek moom moo see jiitu. Mhm. te bi si gën a maa ngi koy wax keroog ci sama benn émission ma ne moom. ci moom laa mës a gisee euh, man artiste la ma def sama anniversaire à Sorano ak ak solo jigéen nu mu laajee frais mm-hmm. ma invité ti mu déplacé wu ñëw anniversaire ba neex na mm-hmm. xaalis ba dugg na ci dem ba gise saal ba fees na titi ñëw woy ba affaire yi jeex yëkkati xaalisam may may may ko fecckat yi liñ ko joxoon yëpp mu jox ko fecckat yi ak ak ak musiciens yi yëkkati dara préparé sama jabar jox ko après mu dem. xanaa bu ma xëyee maa xaw waroon woo xool nu ma def. ma xëyee sama jékki jékki-jékki sama téléphone def teng. Eh message ñëw mu nekk xaalis ma ne waaw. lan la li mu demee nii. ki ale mi ma ne titi moo waa man ma yaakaar ne man maa ko waroon xëy ne ko ne ko ne ko masa bi <laughs> jaaxal ma nag ma ne waa waa man lii man maa ngi koy soo gis ah. d'habitude ki organisé encaissé na moo war a bës bouton. Mhm. ba léegi ma toog sama téléphone gis titib envoyé. nga jot ñëw waaw. ah affaire bi doy waar ma ne waa kii tam est-ce que ça mhm. après bon après ma xam nag ne saa nitu kese la. Mhm. chaque année aussi mu ñëw su ñu ko may xaalis ma si kaw seen bi du ko. du ko du ko du ko laal ba bii moo ci mujj Mouhamed doomu a xam ne si dara que dama doon bañ sax ba sax boo seetlee sax mooy cinq ñu daanu ci kaw seen ba hmm. parce que dafa bañoon a yóbbu même xaalis boobu noonu hmm. donc moom tey ànd na ak man ci ànd boo xamante ni vraiment daal hmm. ah parce que léegi dëkk bi vraiment ànd waa ñoo mel noonu non moom kay amul morom affaire de waa parcelle donc morceau bi ma ko woowee morceau bi bii morceau sama album la njëkkoon nekk Ah. morceau bi tëgg nañ ko ça fait deux mille quatre vingt no non euh, euh, euh, deux mille dix huit <laughs> dix neuf vingt vingt et un vingt deux vingt trois ba deux mille vingt quatre six ans musique bi def na six ans. waaw ok. ma woo Titi ma ne morceau bi génn na album mais man dama ci sentir Titi ñu def ci dio ma changé samay parole ne Titi il faut nga ñëw. titi dugal voix am bi mu ko dugalee ba tey mat na un an et quelque waaw mhm. ah, ah, morceau bi mosuma ko génnee tey la ko ci lañ ko génnee le huit bi nii ndekete sénégalais yi dafa mel ni morceau bi lañ doon xaar man jot naa appel fu nekk Baaba Maal daf ma woo barki démb mhm. ah, bi mu apprécié par dafa ma ah yow titi jagante ngeen de <laughs> right donc mu nekk aussi ku baax ah uh-huh. aussi euh, euh, sonal ma benn yoon ci loolu li si bëri su ma voya su ma voyagé moom ci lay am jot su ma ñibbisee woo ko iti moom it muy demati mu ne waa kañ lañu tasante Sénégal <laughs> donc yàlla dogal fa am ñu génne ko affaire bi am solo ah ga Sénégal jël ko mm-hmm. euh, Demba ku xool sa parcours euh, parce que def nañ ay émission nga nekk bokk nga ci artistes yu ma intéressé Sénégal ndaxte um, euh, fu la nit cukkee ci question côté artistique côté um, culture yaa ngi fa pour tontu ko ni nga commencé boobu ba tey Um, est-ce que tey euh, level bi nga agsi nii parce que yaa ngi ci level bi ci kaw est-ce que yaa ngi doon xaar euh, pour mu ñëw euh, léegi léegi nii. waaw bon xam nga nag man nag xaw naa yàgg ci ci affaire bi de. yàgg nga ci kay uh-huh, ah of course. xaw naa ah. <laughs> moo la ci gën a yàgg. boobu waa Kéba ñëw na xam nga Kéba waa Kéba ok c'est vrai xam nag ancien gloire la xam nga. man xaw naa cee xaw a dire tuuti boobu man xëy na boobu télé yi ñëwaguloon boobu RTS ak moom nee na ko rek moom doon donc su ma jaaree ci télé ba 11h euh, midi su ma génnee di dox nii boobu boo damay jël car rapide su ma génn dox àdduna bi ku nekk na ma gis naa léegi télé xam boobu benn télé bi nekkoon. Mm-hmm. donc léegi sax la télé yi bari ba boo génnee fenn koo woo mu ne la maa ngi doon seetaan beneen ba. Mm-hmm. waaye waaye RTS da ngay génn benn Sénégal yëpp xam ni yow yaa doon jaar télé bi léegi léegi. dama doon def émission pare midi bu jeexee rek. balaa maa jël car rapide mën naa fekk dox dox lu bari pour rek ku ma romb ne ma. yow pour ñu xam <laughs> <laughs> nga yàgg ko gëm di donc ma yàgg ko gëm nag concours ma musaan dégg rek. Mm. damay daw bokk ca quoi. donc bi ma mujj bokk je pense que xeex si bëre woon maire chanteur. Mm. mais avant boobu. njëkkee naa ci ay Kasanga. Mm. Oscar de vacances yàlla dogal bu ma ci bokk rek damay nekk meilleur chanteur bi. mais nag euh, côté Mali. moo ma xaw a ubbi tuuti par rapport ak seen làkk ak ñun suñu làkk man xalpulaar la donc dama fekk ci bambara yeeg yooyu ñoom baba ni nga ko ne su ma demee dama doon dem ñi may tàggat may nekk ak ñoom ay affaire ay ñoom umu sànq dañ doon fekk Mali hmm. donc su may demee foofu nag dafa ay weer di jàngaale ci seen musique yooyu moo tax ma am facilité di woy ci pulaar ak bambara ak soose ak yeneen affaire nga xam ne léegi ma rythme yi may def yi moo may permettre nag su ma génnee fi Sénégal may dem ci yenn festival ak yooyu parce que xëy na du mbalax pure dure bi laa fay def sax waaye nag yeneen yi moom may xaw a dimbali ba fu ma dem rek euh, euh, alhamdulilah quoi lu seen programme après koor gi ndax fii moom lu ñu rënk-rënk denc ko aj aj lan li nuñ koy waxee aj aj affaire yi ñuy aj ci koor gi ak jaaj ji euh, xaw ma kooki xaw ma je sais pas expression bi seetal leen ma ngeen yónni ma ko sama téléphone. bu koor gi passé lan ngeen nar a def lan moo na a nekk seen programme yéen ñaar Sénégal et à l'international. Ah non Titi kay moom dañu continuer rek Titi am na yeneen ñuy def. parce que Titi bëri na ay date d'ailleurs. am am na sax sama benn single bu may waaj a génne. ambiance bu neex boobu comme ni ma waxoon ayo dafa neex. waaw ayo bébé morceau boobu may waaj a génne dafa neex nga ne ayo bébé te woyaguma ko ayo bébé dafa. non boobu dafa neex boobu moom man maa ko waaye xam naa dafa neex <laughs> xëccaatal ma neex bi ñu doon may bi nga ñëwee ci dama ko génnee ku ne dama ko laaj ma ne pourtant dafa neex déglul da ngay déglu da ngay xam dafa neex quoi c'est vrai que dafa neex ok mais bi may waaj génnee laal naa ci tuuti ci wayu euh, titi waaye du ma ko wax ban way la du ko wax ci fan la waaye xaw naa see cof as tuut ci sama morceau bi ma war a def euh, boobu mais fii laa ko waxee TFM mhm. barki yunte yàlla Mamadou Pape Cheikh morceau bu neex la te dama guma studio woyeguma ko air bi sax pare guma ci. te woy bi woy bi génnagul. non def barki yonent Yàlla Muhammad ndax xoolal dama toog fii dama jàng neex-neex bi avant woy bi di agsi. donc koo yëg. li ko nar a gën a neexal nag laal naa ci woyu kii. waaye du ko dara woy bi neex la war a tudd kon bu ko wax <laughs> kon bu ko wax wér ndax titre bi neex la neex la war a tudd kon lépp mën a nekk <laughs> alors titi titi yaa ngi yaa ngi préparé ay dates yu bëri am na euh, loo xamante ni tamit ñu ngi koy fàttaliwaat sénégalais surtout pour ñu nekk Italie. Mhm. yaa ngi jëm le 3 euh, Bergamo le 27 avril yaa ngi Norvège le 30 avril yaa ngi Rome le 3 mai yaa ngi Bergamo le 4 yaa ngi Stuttgart le 18 mai yaa ngi Roubaix France di ay dates yoo xamante ni retrouvailles la nar doon entre yow ak sa ay fans. waaw Pape xam nga ñëpp xam nañu ne am na date yu ñu dëtmaloon. Mhm. bi ñu duggee woon ci décembre bi. Mhm. far yàlla def après ñu puusoon ko. ah yëpp la ñu waaw léegi nag euh, nga gis ne cette fois si aussi. Mhm. dañu war a defaat. tour bu yam lañ koy def sax. macha allah parce que si date yi comme dafa bari woon. moo waraloon nag appal ñu daggoon ko. arrêté woon ko. waaye ci doole yàlla suñu borom bi wa taala nga xam ne moo ñuy jàppale saa su ne. maa ngi wax waa Europe que dinañu amaat titi. Mhm. comme ni nga ko waxee. Mhm. à partir du 27. à partir du 27 waaw à partir du 27 dinañu dugg Europe bégal fans yi. Mhm. bégalaat melomaan yi. te Norvège ngay njëkkee. waaw te Norvège fu bëri say fans sax surtout. Gambien yi nga fa. ma xaar. fans club bi aussi ñu ngi fa di ma te tamit fans yi am na ci yenn dëkk yoo xam ne mun naa ne depuis gën gi dëkk laa fa gëjoon a dem. yàgg na dafa yàgg donc kon ñoom nga gis ne bi ma fi toogee woon 4 ans voyagé wuma woon yëpp. ñu ngi doon xaar yi nga xamante man moom laa doon génne fi mm-hmm, Dakar mm-hmm. donc nag il faut que ñu dem may leen ci mm-hmm. jox leen ci ñoom it ñuy enjoy ndax dangay gis ne boo ko laale bi ba léegi ñoom dañu naan doyaluñ ci te boo ko laale même boo xoolee rek euh, ci mois bi ñu nekk ni sax la def un an mi ngi doog def un an macha allah mais fans yi melomaan yi dañu yàgg bëgg titiyee ci ay woyam bëgg titiyee ci harmonie yi gaam yi rythme bi musique yi titi di teg ak thème voilà léegi defe naa Demba da ngay dem way waaw ñu ñaar koy wayandoo yéen ñaar koy wayandoo kon ay ca mais Titi balaa ngay dem ñaari yéen ñaar ñëpp laa koy laaj ban message ngay jox sénégalais yi mhm. ñu ngi joge ci ay élection jóge nañu ci nu mu tudd ci euh, weeru koor nii da ngay dellu siwaat ak tournée bi ak ay spectacle yooyu ban message nga bëgg a jox sénégalais yi waaw message bi may joxe nag Pape euh, mhm. pour une première sax mhm. parce que ku xam Titi ya xam ne euh, dama mos a wax ne man je suis apolitique. Mm-hmm. donte euh, artiste laa bu xam ne man àddunaa ma bëgg. Mm-hmm. te ci réew mi la tàmbalee. Mm-hmm. ndax euh, son excellence bi nga xamante ne mooy le président sortant je l'ai toujours dit et amoon naa habitude daan wax ne xamoon naa ko avant mu doon nekk président muy Macky mais les gens ont vu que ne mosuma figurer fenn ci lu jëm ci lu daan dem ci affaire politique wala dara. waaye terewul rek Sénégal moo ma ñor Sénégal laa bëgg ndax fii laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee. Mm-hmm. et je l'ai yàggul ñëwoon naa fi émission ak euh, bi ñu ma fi invité. Mm-hmm. Kakatar. Mm-hmm. ma waxoon ne jeunesse bi dañu soxla liggéey. waxoon naa ne jeunesse bi il faut ñu taxaw leen. waxoon naa ne sama dëkk dafa metti waxoon naa ne tamit rawatina ñun ñi ci banlieue bi. lu ne la gis. da gis suñu jeunesse di souffert. on avait vu que ne comme ni ma daan wax rek. Mhm. école yi du foo dugg rek fekk ko fa. Mhm. dafa néewoon. Mhm. te ku wax dëkk di nga wax lu bari surface yu bari. donc mais il s'est trouvé que ne cette fois-ci ak euh, son excellence le président Diomaye. ñu ngi koy nuyu. di ko naan na dal jàmm. man mun naa ne bii ni dama cee yëg sama bopp. xaw ma nag lan la yàllaa koy def. mun naa mit li ma dëkkandook ñoom la. wax ko euh, interprété waat ko pour Ousmane Sonko. non soo ko laalee bi. <laughs> xam nga boo ko laalee bi sax boo xoolee. xaw na méngoog moom ndax bi ñu ko génnee ñëpp dañ ne woon usmaan Sonko laa ko yoon hmm. ñu bëri sax dañu foogoon ne loolu la. Hmm. waaye yàlla dafay def léeg-léeg gis nit bëgg ko te yaa rek tax. Hmm. muy Diomaye ka muy Ousmane Sonko mos naa ko wax sax une fois benn jour bu ma Padros invité woon. Mhm. na ma moment bi bu ñu la doon wax ci président yi koy tànn Diomaye euh, Ousmane Sonko wala Macky Sall ma ne ko ñoom ñaar ñëpp. Mhm. mun na ma li tax ma ne ko parce que ñoom ñaar ñëpp mun nañu gouverner. Mhm. boobu temps Macky Sall moo fi nekkoon. kon nga gis ne liñ doon ñaan yàlla suñu borom def na ko. Diomaye toog na. Diomaye Sonko Sonko mooy Diomaye. man dama kontaan nag ci seen toogaay. et dama koy wax à haute voix ñëpp di ma dégg. Mhm. maa ngi leen di ñaanal toogaay bi ñu toog yàlla nañ ci gis suñu bopp. amiin amiin ñoom it yàlla nañ gis seen bopp ci ñun. amiin te it boo xoolee ak projet bi ñu teg li gën a dalal sama xel mooy. Mhm. jàpp naa ne sama jeunesse dinañ liggéey. Mhm, réew mi. ndax loolu rek lañ bëgg Pape. ñu nañu liggéey rek. nañu am ci lu ñu jàpp. nañu am ku ñu dooleel. dund gi cher na ceeb bi cher na ndoxu courant cher na. weer ak weer dafa jege. Mm-hmm. te nit ñu baax ñi rek ñoo nekk ci dëkk bi ne te mënuñoo yuuxu. Mm-hmm. pap boo xëyee su bëgg dugg ci banlieue bi sa yaram day daw. Mm-hmm. benn kër ñaata nit a fay nekk. dafay metti waaye ñoom ni ñu ñëwee nii ku leen gis xam ne dañoo ñëw pour liggéey. kon yal na leen ci suñu borom dooleel ba seen projet bi ñu teg ñëpp gis ci seen bopp. man de ñoom laa àndal. macha boo bëggee dégg dëgg te yal na seen njëglaay. Uh-huh, amin waaw amin li laa wax. Demba. wa kon mu ko waxee rek ñu Euh, président Diomaye Diakhar fay di ko nuyu baax baax di nuyu aussi Ousmane Sonko premier ministre di nuyu aussi Macky Sall mi fi jóge mm-hmm. di nuyu ñëpp ñoo xam ne aussi ñu ngi nekkoon ci affaire bokkoon ci yàlla dogal Diomaye jël ko. Mm-hmm. Diomaye na bu ko jëlee dañ koy ñaanal rek comme comme di wax rek. Mm-hmm. man de pour wax dëgg rek. du ma politicien. du ma artiste su parti nekkuma parti kenn faraluma kenn ñëpp laa faral Sénégal laa faral. ku fi nekk rek ànd naa ak yow akay kenn du ma forcer nag waxal kii wala woyal kii wala demal kee woyuma kenn jayuma kenn tagguma kenn ñëpp a yem ci ma ndax Sénégal laa comme ñoom kenn ëppale ma ci réew mi <laughs> donc ma leen di nuyu baax a baax a baax di wax nag moom président bi jomaay projet bi mu teg yàlla na yàlla oyofal ko yenn wi mook Ousmane Sonko ak ñeneen ñi ci ci gouvernement bi asalaamaaleykum kon ñu déglu leen et dañ ko dañ koy def doublé cest à di nga woy ak Titi après tamit Titi il faut que mu jox ñu suñu ndewenal loolu moom télévision Futur Média moo leen koy may léegi nii mais d'abord Demba Guissé ak Titi sur scène. su ma la tooñatee boo ma yedd ma ndax yenn saay ma ji Demba Guissé ak euh, Titi euh, Titi euh, dafay continuer bégal ñu puisque moom tamit il faut mu joxe ndéwénalam voilà ndéwénalu Titi jëm ci téléspectateurs yi loolu dañ koy am léegi ni on va continuer ci seen bi et en même temps ñu ngi joxe seen ay ndéwénal ci 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 ak it 88 628 65 65 wala 88 676 06 06 titillé. mooy joxe ndéwénal mu ngi ci euh, tournée européenne lay préparé Stuttgart ci dëkk yu bëri elle sera là-bas en spectacle Titi euh, qu'on encourage ba Guissé tamit ñu ngi koy gërëm bu baax une belle chanson euh, mu def ko ak Titi un titre qui cartonne actuellement y a d'autres dates yoo xamante ni dinañ leen ko wan bokk na ci wax naa ko léegi nii Aubry Daman mu ngi jëm terrasse bu COP 21 xam nga terrasse bu COP 21 nag fan yii moo xew voilà gis ngeen ko noonu Aubry Daman ca c'est un artiste hors pair euh, moom mu ngi jëm euh, fi nga xamante ni mooy euh, mooy terrasse bu COP 21 Daba Sey Daba Sey tamit mu ngi ànd ak Yaay Ndare production nar a tëgg spectacle fi nga xamante ni mooy Bergamo voilà Bergamo Daba Sey fa la jëm itali incha allah le 11 mai. ñu ngi may wax ni mu ngi ci euh, coulisses yi elle sera avec nous euh, dans quelques instants ci plateau bi Kéba Seck tamit mu ngi fi moom lañuy ñuy ñëw àndal léegi nii maa ngi seen suma rakk euh, Kane Diallo tamit mu ngi fi y a d'autres artistes qui sont là bu leen fàtte Carlou D tamit mu ngi jëm vendredi 12 avril vendredi 12 avril jungle voilà jungle lay joué The Jungle The Jungle lay joué le 12 avril et euh, Bambali suba lendemain Korité mu ngi jëm fi nga xamante ni euh, mooy euh, RDC Dream Club il était là tout à l'heure donc wax na ci événement wam Djiby Dramé tamit mu ngi préparé naa leen woon affiche am léegi nii Djiby Dramé nuit du Bazin Bazin night la ko tuddee mu koy amal incha allah le 20 avril voilà le 20 avril 2024 nuit du Bazin ak Djiby Dramé Gambi la koy Gambi lay defee nuyu de. waaw euh, Gambi lay def euh, nuyu de. bàyyi ko man euh, Djiby man sax bokk naa si ñu mu tuddee bés bi Zeynab Dabo ak ñeneen ñeneen kon Gambi yéen Zeynab Dabo taxaw leen rek Djiby comme niñ ko faral di ko defee rek. Djiby moom Djiby international la. Djiby bi nga xamante ne ci man mi ngi fi ba mi ngi fi fan yi mi ngi teeru bi ah. démb. damaa baax ñu man awa waroon nañ fa dem seetu ko doo nga fàtte xanaa loolu. waaw dama ko fàtte fii fii la korité de. ah Zeynab fii la korité mi ngi fi